internet Thiès Info jërë ngeen jëf uh, ci seetaan bi ngeen ñuy seetaan tàmm bi nga xamante ni yéen a ko tàmm uh, Thiès Info Thiès TV tey nag ñu amaat mbégte ak contentement di ñëwaat ak yéen seen biir émission astuce de femme ma daal di ci dalal nag une grande dame taalibe Cheikh na Cheikh saado bi bi nga xamante ni yaakaar naa ni dootuñu ko présenté muy Mama Gawlo ñu ngi leen nuyu di la ziar di la dalal. Khadija maa ngi lay fay nuyoo macha allah di la wax nuyoo bi gën a tedd ci baatu asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu waaye yow itam maa ngi lay wax waaleykum asalaam wa rahmatulahi taala wa barakatuhu Khadija di la wax ne la dalal ba yaa ñëw nga sa kër ñëw nga foo miin nag ñëw nga foo xamante ne macha allah doo fa gan waaye ci noonu laay profité di nuyu ñëpp kullu ku dëkk jàmm gën kullu xum kulim da ngay juum. waaye du nuyu sang bu baax bi ma yàlla booleel muy sama borom kër di nuyu nag association bàjjeni Seydina Mohamed ci nuyoo bi ma ci jiital Idrissa Ndiaye suñu président macha allah ak xale yi mu àndal ñëpp ak ñi mu jiite ñëpp macha allah. macha allah ñiy amati mbégte rek. comme ni nga ko waxee miin nañ fi loolu tarkaala macha allah saa yu ñëwee nga teeru ñu teral ñu waaye sa sañ sa baax. Eh, tudde naa la <laughs> kenn ko xam bataan laa ubbi rek. mu sob daanu ci samay tànk ma ne ko comme sob nga nag ji waaye jaay waane ba daanu yow yaay dem. macha allah vert bleu bi moom bëgg naa kontaan nga ci sooy dem ma jox la ko nga yóbbu. jeex na tàkk <laughs> ay ca mi ngi noonu comme ni ma koy faral di waxee rek astuce de femme moom day émission boo xamante ni dañuy dugg ci kër yi waxtaane daal di teg suñu ay astuce et comme ni ngeen ko gisee nii nag Mama la laataa ñuy dugg ci waxtaan bi rek comme kër yi la ñuy waxtaanee jéeg-jéeg kër yi ah nu ñuy def ba ba suñu sunu borom kër yi tey ñu andi leen li nga xamante ni moom mooy euh, lorier gis ngeen ko ni Mama la laataa ñuy dugg ci waxtaan bi rek ma bëgg nga wax tuuti ci ci laurier bien fait laurier. waa Khadija at war fa kàlla macha allah woo nga naar ci guuxum soow ngir lu mu ñime yow Laurier soo ma ci laajee dinaa ci sawar tontu ci tuwaar fakkàll macha allah ndax Laurier kii dama ko dénk sama garde mu ne ci sama territoire téyal ma ko. Ah, may xamal jeeg ji ne Laurier secret yu am base ngi ci Khadija li nga wax ci Laurier ah, Laurier liñ ciy wax dina bari ndax li ma ne la Laurier dama koo dénk sama territoire mu téyal ma ko jeeg ju bari nag xamuñu secret bi nekk ci Laurier waaye laurier mag ñi ko xamoon daan ko bàyyi daan ci bàyyi xel moo tax tey ma bëgg ñu waxtaan ci laurier waxtaan wu yaatu ma bëgg jeeg ju ndaw ji macha allah tuwaar fakal la ñu bàyyi ko xel ndax laurier mbir a ngi ci Khadija laurier waa mbir mi ci nekk yaatu na neex naa wax parce que laurier dina dindi kumte juróom ñaari xobi laurier day faj jabet juróom-ñaari xobu laurier day dindi kumte boo xëyee sa yaram tàng wala sa yaramu doom tàng nga wut xobu laurier rek ñetti xob la ñeent def ko ci ànd suuroo ko macha allah lépp looy ragal ci sa yaram bu ci yàlla àndee day deñ laurier daal maanaam ci gàttal dee rek la ma tafaj waaye ci biir laurier itam laurier ngi ci bi ci néegu sëy yi laurier ngi defar sëy yi laurier ngi mottaliwaat nit ci néegu sëyam ndax tey Xadija laurier soo jëlee ñetti xob yi waa ñetti xob nii rek yàlla bu mu nekk weekend waar fa kàlla macha allah sa borom kër ñëw waa ngoone kii ñetti xob la rek waa bariwul mu nekk weekend rek démb la woon alxames defe naa tey la vendredi suba la samedi jeeg gi ndaw ji nan ko jël capturé leen ko denc ko ci seen téléphone yi macha allah ki ñetti xob rek la moom ngay raxas ba mu set rek daal di koy def nii ci sa bool bu set nag fekk tàngal nga sa ndox mu tàng ba pare waaw kii ndox mu tàng la. fekk tàngal nga ko baxal nga ko ba mu bax nga sotti ko ci euh, bokaat boo xam ne ni dafa am kubéer te du gaaw sedd bu ko defee boo raxasee laurier bi ba mu sedd ba mu set sel am hygiène ndax nag lépp loo xamante ne day dem ci jigéen hygiène bi dama ko ciy bëgg man dama ciy bëgg hygiène bu ko defee nga daal def nii bisimilah rahmaani rahiim boo defee nii rek lu toll nii rek baax na luy tollook ñaari kaasu attaaya wala ñetti kaasu attaaya rek Xadija nga bàyyi ko nag daal di jël benn kubéer boo xamante ne moom tam set na nga daal di ub boo xam ne transparentul saxaar bi du génn nga ub ko ci bàyyi ko ba mu sedd nga daal di jël xob yooyu génne ko fekk raxas nga sa loxo ba mu set nga dindi xob yooyu nii rek nii rek ngay daal di def daal di wicce xob yi ba mu set nga dem teg ci poubelle bi ñu jéggal ma ma teg ko nii. waaw mën na am 15 minutes ba 10 minutes ba 15 minutes bu la neexee sax nga bàyyi ko ba 20 minutes ndax lu mu ci gën a yàgg rek da ciy gën a yàbbi comprendre nga léegi ndox mi def nga ci ndox mu tàng ak laurier nga daal di jël nag parfum boo xamante ne eau de roche la amul euh, alcool boo xam ne fooru itam du parfum bi rek laa existé nit ñi parfum bu la neex ci eau rek man nga koo am waaw mais pas mu am alcool parce que alcool bu bari ci parfum euh, dafay gêner góor ba du mën a li mu bëgg a mën a def ci jabaram yëpp du ko def parce que parfum bu fort baaxul bu ko defee parfum bi ngay daal di jël sotti ci biir bocal bi nga defoon laurier bi ak ndox daal di teg bu la dara desul nag lu dul nga war a tëdd ak sa sëriñ ndax na Xadija man toujours damay ne sëy dañ koy waajal sëy danga koy waajal broche à dents ci sëy la soccu ci sëy la sangu ba set ci sëy la takk fer rafet itam ci sëy la yaa ngi dégg def sa sëru malikaan boo xamante ne macha allah amul taas fenn euh, balaagul kenn gisu ko di sër bu bees tàq mu dajee ci paquetam itam ci sëy la lal dara bu weex tàll bu pileem taxaw ci sëy la takk fer yu rafet yoo xam ne pas de bruit en douche laa ko tuddee non fer day am bruit mais am na côté boo xamante ne man bëgguma ci fer bu am bruit parce que tam <coughs> waaw bu ko defee <coughs> non non Khadija non non <coughs> waa xam nga dafay am loo xamante ne euh, moment bi nga sangoo sa ndoxu laurier boobu am parfum ba pare da nga koy jël xëppoo fekk sangoo ba dara du sulur nga tëdd yaa ngi ci waaw bu fekkee ne am nga douche néeg sax ci la gëne xam ne doo génnaat bu ko defee da ngay daal jël ndox moom rek xëpp ci sa yaram bu mu laal nag sa bopp ndax jéeg bu ndaw buy tëdd ak jëkkëram guddi boppam warta tooy mag ñi dañ ko ragaloon boppam warta tooy nee nañ baaxul daal te comme baaxul man mamaa gawlo bu Cheikh na Cheikh Saad bu duma ci digal xale yi ñuy tooyal seen bopp mais li nga defar muy ndox bu tàng bi ak lorier ak parfon fekk sedd na ba sa yaram ñime ko xëppoo ko rek bul sax fomp sëru malikaan nga xamante ne moom nga teg ci sa kaw lal pour war koo woddoo tëdd ak sa borom kër jër ko rek nga laxasoo ko bul fomp ndox moom yi des ci sër bi dina am xetu laurier dina am xetu parfum bu ko defee nga tëddi ko ak sa borom kër dina leen boole saytaane du man ci seen diggante dara. <coughs> bu ko neexee xam nga góor ñi parce que parce que ñun toujours dañuy xaw a fàtte góor ñi ci ah, waxtaanee sa borom kër warul mën a tamit sanguwaale lool bu ko defee xet gi gën a neex. macha allah merci yal na nga gudd fan parce que nag xaayaan ku dégg séeréer xam nga dama ni la sëy dañ koy waajal waajal bi sa jëkkër nga koy jëkkee. waajal bi du question yow sa bopp rek ngay waajal bàyyi sa borom kër parce que adversaire ak moroomam waaj ci la mbëri làmb yi dañuy waaj kenn ku ne da ngay am sa njaq am sa butéel am sa fas am reen kon diggante jëkkër ak jabar ci kaw tëdd waaj ci la sangu ba set defal sa jëkkër bu dee dafa sedd nga tàngal ndox mu sangu ba set diggante bi sa borom kër dem di sangu ji ak di ñëw defaral lii ma la wax muy ndoxu lorier bu tàng bi ak parfum eau de boo am bu fekkee sa douche néeg la braquer douche bi duggal fekk ko ci biir douche bi comprendre nga man damaa bëgg xale bu jigéen jéeg bu ndaw boo xamante ne kaa ñi ma sa jëkkër man damaa bëgg jéeg bu ndaw bu téye trottoiram man <coughs> voilà comprendre nga léegi loolu nga defar noonu bu la neexee nga def ci lu bari nga man ci am sa borom kër man cee am braquer dugg ci biir douche bi defal ko ci siwo boo xamante ne nii siwo 5 kilo 5 litres yi boo ko amee di ngeen ci mën a sangu yéen ñaar xëppal ko ko yow ci sa bopp. sangu ko ko ba yaramam tooy moom sax bu ko neexee boppam mën na cee tooy parce que tooy boobu muy tooy ci boppam itam nga fompal ko boppam ba mu wow ujur boobu des ci kaw yaramam ak boppam. rek macha allah euh, lu neex la ci diggante ñaar ñi war a tëdd war a sëy comprendre nga Khadija ma bëgg jigéen ñi xale yu jigéen yi sëy di soog a dugg ci ménage dañu dindi kersa ci seen jëkkër yi. donc donc effet boobu moom loolu loolu xet kooku noonu maa ngi dégg tout à nga ne day day da leen di rapprocher. waaw dina la boole yi ak sa jëkkër. dina dàq saytaane ci sa diggante ak sa jëkkër parce que lu day dàq saytaane yaa ngi dégg soo mënee itam bala ngay tëdd ne yow sa borom kër soxla na la wala nga soxla sa borom kër beral loo xamante ne du am par parfum ci ndoxu laurier bi nga am ci lu tollo genn wàllu kaasu ataaya rek naan ko mu mujjee ci sa biir nga doog a tëdd. dina dindi infection ci jigéen comprendre nga dina tax sa jëkkër itam du am infection ci yow yow doo am infection moom doo ko wàll infection bu ko amee du la ko wàll. mën ko def itam bain bain waaw mu nekk sa sa ndox. bu la neexee su la neexee bu la neexee ndox bi ma la waxoon mu am laurier bi ak parfum bi nga war ko sangoo bu la neexee nga def ci loo xamante ne nag du fanaan parce que bu fanaanee day fuur. comprendre nga mais def ci loo xamante ne nii rek pour ndax ñi may waxal classe Daaro Seen yi ak Fatou Seen dañu ëppal. dañuy dégg na saabu ordinaire la ñu dem jënd saabu xeme te man bëgguma ñu ne maman Gawlo yow yaa waxoon nangam non bu fanaanee day fuur même yenn bi sax waru ko def ndax bu fanaanee day fuur day mel ni ñam bu forox day décomposé wu loo gis nag bees bees a ci dàq su la neexee boo sangoo loolu ba pare desal ci loo xam ne da nga koy def bien pour sa bopp comprendre nga wa ilaa boo séqeeg sa jëkkër ba pare itam bu la neexee nga raxasoo ko ndax loolu yëpp day dindi infection dina la rapproché ak sa jëkkër dina tax sa jëkkër gën a attaché wu ci yow waaw. dina tax sa jëkkër gën a attaché wu ci yow sànq dañu dugg ci point bu am solo. muy complexe bu jigéen ñi am diggante seen diggante ak seen borom kër. waa gaaw la ndax jigéen war na am complexe ci borom këram. noonu non Khadija su ma lay tontu loolu laa lay wax dama lay wax non. Euh, euh, euh, nan la nit jigéen war a mën a comporté woo ba ba complexe boobu dañ ndax des fois jigéen ñi bëgg a defar teral seen jëkkër yi dañ ciy gis jeeg boo xamante ni par exemple bu waree aaye toute la journée day xëy di di préparer wu mais il suffit que jëkkëram franchir kër gi ba ñu def li ñuy def ba war a tëdd day am complexe li mu doon defar yëpp da koy jël tegee ko nele parce que dafa am complexe alors jigéen boobu tey nan nga koy conseiller mu war a mën a doxalee digganteem ak jëkkëram ba complexe boobu mën a deñ Khadija merci ci question bi jigéen su ma koy digal pour mu bañ am complexe ci jëkkëram li ma koy digal mooy ñàkk jom jigéen première chose da ngay ñàkk jom ci sa jëkkër euh, ñàkk jom ci sa jëkkër Khadija diggante ñaari way dencante jëkkër ak jabar ñoo xam ne toujours yéen a ngi bokk néeg bokk lal bokk benn mbàjj bu ngeen di sàngul complexe warta am foofu. mais dafa franchement ah, dafa am jigéen ñu am complexe. c'est-à-dire xawma dañu xamul fu ñuy jaar pour bégal seen jëkkër je sais pas am na si ñoo xamante ni sax euh, te jii boo boo taalee lam bi dañ naan la fay lamp. waa ci côté boobu nag euh, Khadija gis nga complexe ci góor jigéen moo koy dindi mais complexe ci jigéen itam jëkkëram moo koy dindi day am ci ñaari couple yi des fois da ngay gis ku ci mel ni maman la man moom dama ni man moom marque de gërkëj laa garanti yombal xëy man li ma sax pariwut parce que man nag wax digg yàlla man ki ma yàlla boole day caat teel a ñàkk ndey teel a ñàkk baay kon faaw ma jëndaat biberon defaraatal ko titin di ko jox gute wala déggoo ma. di ko takkal babet di am na jigéen ñu bari ñoo xamante ne ñu ngi am kersa ci seen jëkkër yi. am góor ñu bari ñoo xam ne ñu ngi am kersa ci seen jëkkër yi man lii ngay def dama koy def damay waxtaan ak jigéen ñi dama koy dund ak ñoom dama koy partagé ak ñoom mais ma bëgguma loolu man damaa bëgg jigéen joo xamante ne bu la leeree ne yow sa jëkkër ngi ñëw xam nga dañ naan ub làmb ji neexut ñu ubal la koo neex ñu ubal la làmb ji neexut nga ub ko moo neex xam nga ñu ubal la làmb ji mooy lan dem jënd say bagage préparé ba sa jëkkër teg ci bëtam guddi nga mel ni poñse man damaa bëgg xale bu jigéen bu wow bët ci jëkkëram man damaa bëgg jéeg bu ndaw bu vulgaire ci jëkkëram man damaa bëgg jéeg bu ndaw bu saay-saay ci jëkkëram Xadija jigéen da ngay saay-saay ci sa jëkkër jigéen da doon sa jinne may mun a ci sa jëkkër jigéen da ngay doon sa entre titanique boo xamante ne bu sa jëkkër daggee bu la pikiir wu tataanos day dee te yow yaay tataanosam man lii laa bëgg ci jéeg. am na jeeg ñoo xam ne ñu ngi lay déglu waaye li ngay wax dañ ko comprendre. Ah, d'accord kon ma décortiquer dama bëgg nga donte dinañ ko xaw njar tuuti ndax am na loo xamante ni kenn mënu su ko waxte <laughs> mais ni nga koy waxee nii. dafa am sama zaar gi ñoo xam ne duñu comprendre. comprendre décortiquer tuuti rek. ci façon neexalin bi ngay neexal sa jëkkër ba téye ko guddi gi. ah mais Khadija yooyu tam. am nga li lay gunge. yaa ngi lay gunge. astuce yaa ngi femme yaa ngi ci dëkk bi macha allah. aywa waaw bu la neexee bu la neexee nga wayal sa jëkkër. ndax am na ñoo xamante ne xëy na wayal leen mooy tax nga gagné seen confiance am na ñoo xam ne nga léebal leen mooy tax nga gagné seen confiance bu la neexee sax nga wuddoo sa seru paañ bu ndaw sëru soxna Batoor yii xew léegi xale yaa ngi ciy def yu baax man mi maa ngi ciy def yu mel ni jàmm fii ci marché Grand Caisse di ko toj bu la neexee nga def sa sëru soxna Batoor bu baax. teg ñaari fer yoo xamante ne pas de bruit bi ma tuddee pas de bruit nga maajal ko comme macha allah ku nekk ci défilé maajal sa jëkkër loolu lépp bu la neexee sax nga ne ko bébé kaay ma boot la bu la neexee tëdd ko tëddal nii wokkal ko boppam ba mu nelaw comprendre nga bu la neexee nga tàngal sa ndox ba mu tàng. ba tànkam ñi me ko nga def ci tuuti carbonate sànni ci tuuti xorom parce que nag góor ñi dañoo sonn Xadija ku ci mel sama sang baax bi dafay sonn su xëyee sa heures ci suba lay xëy ndeysaan da wuti lu mu indil njabootam mu ngi noonu xam nga soo jigéewul sa jëkkër soo amee kersa ci sa jëkkër ndeysaan coono dina ko sonal doo xam ne tànkam sonn na doo ko ko bësal doo tàngal ndox raxas sa tànku jëkkër des fois mu ngi noonu des fois ngi dem jënd sa lañ set dindi ay wewam ba mu set wut kiir dana dindi ko ba mu rafet xam ne du am benn microbe bu ci nekk tàngal ndox aussi raxas sa loxoy jëkkër ba mu set mu ngi noonu léeg xool ko ay faasam xaw sëq nga dem jënd lañ set wat sa jëkkër ba mu ay faasam ba mu rafet yaa ngi dégg mais da ci jigéen ñoo xamante ne moom ndeysaan seen dund gi dee ko gën yaa ngi wax waaw nii laa bëggoon nga xaw koo décortiquer bu ko defee jeeg ji xam fi ñuy jaar mhm. yaa ngi doon wax sànq point bu am solo parce que mhm. buñ ne euh, buñ ne jigéen ñi rek mhm. tamit foog ñuy dimbalante góor ñi parce que des fois euh, euh, góor gi da ngay toog ak góor mu neen mu neen la sama jabar jongewul ñu baal ma ak ñi ma ko sañ a wax mais am naa sama jabar jongewul mais if c'est pas parce que sa jabar jongewul rek que da war a génn dem doxaani déedéet mais da nga ko war a dimbali waaw Khadija ndeysaan kontaan naa kontaan naa ci li nga wax question bu am solo nga ma jox xam nga Khadija dafa am ndeysaan sama benn xarit dañoo toog di waxtaan xam nga ay jigéen rek fu ñu dajee mu ne moom mos a xam bànneexu sëy ma ne ko ah yow nga am ak sa jëkkër lu mat juróom benni doom nga ne xamoo bànne bànneexu sëy mu ne ma vraiment mama gawlo su ma la ndëbbutee xaw ma bànneexu sëy parce que xëy na jëkkëram itam am na ci loolu part de responsabilité parce que daf ciy am góor ñoo xamante ne ñoom seen bopp rek la ñu yëg. waaw bu ñu satisfaire seen buru seen bopp rek li ci des moom moom lijjanti wuñu ko mais sa jabar rus la ci góor yow yaay dindi kersa gi. bu réeg sa jabar ci dindi kersa la bokk des fois nga fekk sa jabar sangu ba pare ne ci néegam tënjoo sër di war a diwu nga dugg ci néeg bi këf sëram. sànni ci kaw almuwaar bi wala nga këf sëram bàyyi ko mu ne dungu nga bëreeg moom ci noonu dindi sa kersa jabar la xam nga dafa am yoo xamante ne nii biir néegu sëy kersa yoru ko góor ñu baree ngi doxaani góor ñu baree ngi daw di takk ci ay ñaareel góor ñu baree ngi daw di toog ci mbedd meer yi di fa am ay minute du ñu ñimee dugg ci seen kër yi tëddi wa ilaa du ñu yàkkamtee dem tëddi loolu yëpp ñoom ñoo ko du noo ci dugal seen jabar yi sa jabar bu la rusee yow yaa koy dindi yow yaay dindi ruseel googu man damaa bëgg góor gu jonge gis nga jonge gi dañ koo jiñ rek jigéen ñi ne jigéen ñi rek ñoo jonge jigéen ñi rek ñoo war a teral seen jëkkër yi jigéen ñi rek ñoo war a bëggal seen jëkkër yi bàyyi góor ñi mais góor ñi tam am nañ ci part de responsabilité bu rëy lañ ci am ndax nag euh, jigéen yàlla mayu ko mu am jëkkër am far dafa xaram góor mën ngaa am jabar bàyyi ko ci sa biir kër mu nekk seer boo xam ne dof la xamul dara nga bàyyi ko fa dem fekk benn mama gawlo boo xam ne dox na àddunaam xam na lépp ku mu téye sa jëkkër a dee koy tàqaleeg moom mu ñàkk fayda ba dugg ca moom bu ko defee ñu naan jabarama ko téyewul wa ilaa jabarama ko toppatoowul jabaram la mu ngay def kem kattanam waaye xëy na la jëkkëram waroon a ubbi ci jabaram pour mu xam li mu koy téye loolu porte boobu la ko tëjal comprendre nga daf ci am jigéen ñoo xam ne nag ndeysaan yàlla moo leen bind kersa ki yàlla bind kersa nag leen ci nan leen di dimbali tuuti. bu seetaanee maman Gawla mais <laughs> euh, bi dina jeex ah, man man bëgg naa parce que point bi dafa am solo góor ñi nañu bàyyi seen jabar yi jongewuñu rek ñu génn dem di doxaane jigéen da koy dimbale c'est pas parce que ni ñun ñoo yor kër gi ñoo war a jonge bi non non mais c'est nous dans nous mm-hmm. c'est nous donc point boobu maman Gawla góor ñi nañ bàyyi loolu. waaw parce que jigéen góor ñi ba tey dama leen dal ci côté boobu ba tey côté boobu dama ci euh, nu mu tuddati sol robe avocat taxawal ci jigéen ñi. góor ñi moom tey moom dama leen di xaw a boycotté tuuti nag ànd ak sama mbokku jigéen ñi wax dëgg yàlla ndax nag 8 euh, mars baa ngi ñëw muy weeru jigéen ñi. waaw mu ngi noonu kon nan ñu dimbaliwaat jongeel jigéen ñi jongeel jigéen jëbar jëkkëram moo ko koy feeñalal yow bu la leeree ne sa jabar dafa bari kersa yow jigéen dangaa bari kersa te yow mi jëkkëram xaw ngaa mel ni mama gawloo kersa bari la woo ko lu bari yow da ngay jéem a cokkaas sa jabar di ko tooñ di ko jéem a waxloo di jéem a foo waaw xam nga des fois xam nga Khadija li góor ñu bari xamul te mu neex ci xolu jigéen ne ko góor ñi di bàyyi xel góor ñu bari dañ ko réere mbir nee ma lan la Khadija nga jàkkaarloog sa jabar ndeysaan fixé ko di ko xool benn xool xool ko ba yaramam daw mu siggi na la lan la nga ni ko nopp la. bébé mu ne la naam je t'aime bébé chocolat bébé d'amour sama bébé en envie de toi. di tuunu xanaa xamoo ne des fois nga wax sa jabar loo xam ne sax nekku des fois nga naxe ko loo xamante ne moom mi ngi koy naxe da koy leer ne lii nekkul waaye bëgg mu ree bëgg mu ree bëgg mu ree ndeysaan ak bëgg confiance ci moom bëgg koo dalal dina tax moom da koy leer na kii dafa may nax barki Seex Saadu yooyu dafa neex yooyu dafa neex sama góor gi ndeysaan des fois damay jéngu toggal ko ndax ma dama taluma dara ngeen teeg cee damay woyaane rek léeg ma toggali ko ndeysaan teg plat bu baax defar ba mu baax nag teg sama accessoire yu mel ni dege bu lekkee ba suur dinaa xale yi daal bokkoo ak ñoom yaa leen man daf may leer ne sax li ma togg xëy na ñàkkul defa bu ci nekk saf na xorom wala saf na kaani wala saf na tuuti poobar waaye dina ma dina ma attiré ci boppam du bëgg sax ma xam ne li ma togg xaw naa am léegi yow yow yow yow tey jii sa sama sama nijaay parce que ba tey maa ngi dégg nga koy jox exemple xam naa ne tarkaal ban moo bu neex nga xamante ni moom la lay xool di la ko wax sa sama jamaanu waa sama nee sama jamaan waa rek sama xol day sedd Khadija man li may léttu bariwul ndax moom moom moo tax li may léttu bariwul lu ci bari ay léttu yu dijj rek laay léttu torsaat yu dijj wala ay tresses yu dijj yoo xam ne dina a firéeku xam nga lu tax dama amu sa si ñoo ndeysaan mu di ma xool ba yàgg mun ma xoola si ñoo ni mu la jàppee loolu ëpp na 10 ans mais booba tey si ñoo mooy sama létt góor ñi lii day dundal xol petit mot yooyu ngeen di xeeb bébé je t'aime bébé tu me manques bébé qu'est-ce que t'as envie de bu may wàcc jëndaaleel la dara bébé lii bébé laa defal ko ay surprise dënd ça fait plaisir ah xasuñu leen mais dañu bëgg rek tamit ngeen dimbali jeeg ji tuuti ah bi ngay ñëw léegi moom nga fekk ndeysaan may wax mu nekk góor gu bëri yërmaane alimay sama xuraj ak ma Fatim ne borom jaam ñu daaw ku mbaag ji koy waay ramatulaay la yaayam tudd sira maram yuga faali sira ku ma la bi bu ko la non may xool léegi rek xool ma léegi rek ndeysaan ma jóg gañ wuti robinet ba di dajeeg moom gañ rek mu daal di taxaw ñu ma yow lan na ma ne ko sonn rek sonn dara dalu ma damaa sonn rek xoolal loolu moom mu ngi xeeb loolu mu wax ak man te bu fekkoonte ne damaa feebar sax loolu soulagé na ma parce que kilo xool ba xam ne am nga méttit xool la ba xam ne sama jabar jii mu ngi souffrir mu laaj ko lan la lan la boobu rek médicament la waaw. kon en tout cas point boobu xam naa ne buñ ci toogee di ci wax fii ba suba. duñu fi du duñu fi jógee da point boobu dañ fay capp suñu baaraam. ñu daal di defaat non dañ koy defaat. dañ koy defaat kii euh, toujours ñu nekk ci néegu sëy dañuy xaw a nag. Euh, dugg tuuti benn point bu xaw a sensible euh, Mama Gawlo kii day sëy mais sëy bi muy sëy day sëy kër goro yàlla dogal nag euh, borom këram loxoom jotul ginnaawam waaye xaw a doon ku doy waar mu wëlbatiku ay goro ak i njëkkeem bëgguñu ko mais yàlla natt ko mu bëgg boroom këram. mbokk yi question bii mooy posé pour Mama Gawlo la waaye pour yéen ñi internautes yi eh, yéen ñi ñu seetaan ngeen ànd ci seen xalaat ndax dafa jaaxle. sëy bi metti loolu lu mu def gisuñu ko muy laaj nan la war a def pour regagner amuuru jëkkëram ak amuuru famille bi. parce que yàlla da ko nattu nag mu bëgg boroom këram. loolu mais amul lu ko neex. ndeysaan Khadija maa ngi kontaan ci question boobu nga ma posé. Khadija kooku bala may wax dara dañ koy ñaanal yàlla yal na yàlla soppi borom këram maa ngi koy ñaanal ci kàttanu yàlla ak mbaaxam yal na yàlla soppi ay njikkeem ak ay góorom ndax nag sëy góor gu réew dafa metti sëy góor gu yaafus dafa metti kii jëkkëram dafa boole réew ak yaafus ak ñàkk xam gëddee jigéen kii jëkkëram royul ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ma bëgg góor ñi ñu delluwaat ginnaaw roy ci yonent bi njëkkeem yi ak goroom yi goroom def ko comme doomam ndax su ko defoon comme doomam bu mu jur ah dina ko yërëm. est que borom këram tam bu amoon fulla waa kër gi dina. waaw mooy matadi gi may wax rek mooy matadi gi may wax rek góor benn nopp la góor yaay may ma ñeex la ndax góor yow li ñuy yebe sa jabar yow góor yaa koy def waaye li ñuy respecté sa jabar itam yow góor yaa koy def su fekkoonte ne moom ci boppam moom mi muy séyal moom jëkkëram. respecté na jabaram jox ko gëdd ba mu war a am teg ko fa mu ko war a teg mu gënal ko lépp ginnaaw ndeyam ak baayam kon waa kër gi dinañ ko respecté bu toggee daañu ne neex na xanaa muñ nag xam ne ko dal nattu la Khadija muñ rek muñ kese laa koy digal man te xam ne nag li ko dal nattu yàlla la duma ko ni tasal. ci biir muñ boobu ban <coughs> astuce nga gis ni moom la war a def bon pour pour pour au moins regagner amouru famille dara nag xanaa jullitee ñaan sunu borom yàlla yal na yàlla dëppale baat xol yi waaw. na xam nga lu tax dangaa fàtte woyu Kiné bi mu woyoon say xare la boo ci juree doom jam nañu la waaw mais nag woy na woy bu am sens boo xam ne daf ne ki bëgg ba bëggantuwu la loo ko mënti di fi du ko gis ndax mu jël ga lay xool waaye ki xas ba bañ la loo ko mënti tegal du ko gis ndax mbañal ga lay xool sëy bi am na ci doom ne muñ sëyal ay doomam bu ko dara manqué nag mu jëkkëram na koy jox àqam ba mu mat te moom jabaram mu jël àqam bàyyi ko ci loxoy sunu borom ndax nag yàlla lu ko soof mu wane ci loxoom li mu warloo ak jëkkëram jëkkër la du far du nekkaale. li mu war a am ci moom bu ko soxlaa na ko yomb bu mu ko teree boppam bu bu ko soxlawul sax moom na sàkku jëkkëram ngir ay doomam bu ko jëkkëram sàkku nag ne ko ne yaa ko teree neex na ci gaaw na ci rapide man bëgguma jéeg biy tere jëkkëram boppam. la ko warloog moom da ko daan taajal ndékki na ko ko na ko raw tey da ko daan defaral añ na raw tey da daan liggéey di def ci boppam na takkaat ndiggam na raw tey moom nag na ko teg ci loxo sunu borom moom jëkkëram kii di yaayu jëkkëram itam na ko defaat ni yaayam rek man lii laa koy wax ndax kii def ci yow lu bon ngay def ci moom lu baax su yàggee mu bëgg la xanaa su yaramam dee daw bët su rusul toj bopp du yenn waaye bët du yen waaye xam ne lu bopp attan naam yaayu jëkkëram la mu koy defal la man bëgg ko mu ngi koy defal la mu man gisu ko na continuer bu mu bàyyi bu mu reculer ndax nag euh, yàlla ku mu narta fay ëllëg du la liggéeyloo tey ay njëkkeem xëy na dañoo sëyiwut wa ilaa ñu sëyi ba tas la leen tas ca seen kër moom lañ bëgg woon seen jabaru frère pour mu tas na ko bañ man su ma xamee yow li nga bañ di sama noon su bëgg ma xëy loolu laa lay wan su ma xamee li nga bëgg ngay sama soppe su bëgg ma xëy loolu laa lay tegal na rek. mbokk yi mu ngi noonu question baa ngi noonu Mama Gawlo joxe na xalaatam yéen it ñu ngi leen di xaar ci euh, ci internet bi YouTube bi bu ko defee yéen it ngeen joxe seen xalaat xam naa li ñuy tëjee émission bi mooy dafa am jigéen ñoo xamante ni Mama Gawlo dañuy jaawale ñaar dafa góor ñoo xamante ni ñi dañuy rus seen jabar mais ñi dañuy ragal seen jabar mm-hmm. mais dafa am jigéen ñoo xamante ni xamuñu ki leen rus. ak ki leen ragal dimbale leen côté boobu waaw parce que des fois jigéen ñi exagéré seen seen jëkkër da leen di rus mais dañ naan sama jëkkër daf ma ragal day dem ba andi lu leen neex la ñuy def di ñàkkal fayda seen jëkkër point boobu la ñuy tëjee waa Khadija Khadija Khadija loolu doy na kéemaan parce que nag dama ko gis sax man naagu da ciy am waa ku naagu ku naagu daagu te ku daagu ñu dab la te ku ñu dab romb la Khadija dafa am jigéen ñoo xamante ne di dañoo waye di yow jëkkër ji la bëgg ba ruus la ak jëkkër ji la ragal war nga koo xam parce que kii la ragal su la gisee def li la neex su la gisul def la ko saf waaye ki xam ne daf laa ruus te su la gisee def li ngay li ngay daw su la gisul def li ngay daw kooku war ngaa xam ne ruseel moo nekk sa digganteeg moom waaye ragal am na ñoo xamante ne dañoo comme li nga wax waaye di la ak yëg seen bopp waaye yëg sa bopp googu ci dañ koo gis te dañ dañu dëgg la man mii dama koy dund ndax dama ni la man lii ngay def ak man ni Khadija dama koy def ak jeeg ji ci dama ciy gis jeeg joo xamante ne ni sëy rek leen tax a jóg leen di leen maltraité ñoom itam li leen waaye di loo mais daf ci am ñoo xam ne dañuy gis jigéen opté ci moom te yàlla rek tax naa sëy ak moom ngir jàppale ko jigéen ja naa ko ne kii daf maa ragal di ko waye di loo di ko jànn ci ëtt bi di ko manqueel su ko yónnee du ko wuyu su waxee moom du ko faale te su génnee comportement bi muy wane ci biti kii dafa respecté jëkkëram lay doon nañu reculer waat waaye na jéggi donc je pense que sa jëkkër rus la moo gën sa jëkkër ah, man sax na bëgguma jëkkër rus la gaa moo gën parce que jàpp naa ne bu la rusee tey lépp lu mu bëgg a def sa ginnaaw si lu ñaaw bu xalaatee rek waaw mooy li ma la wax xam nga dama ni la kilo la rus ak ki ragal du ñu benn kilo ragal heure bu la gisee bàyyi li nga koy tere mais boo nee way yi gisu la rek mu toj dëkk bi mais ki la rus nag su la gisee nga toog ak nga ñàkk nga def ab la yemale yow soo toogee li nga bañ du ko def li nga bëggut du ko def mais su la gisul itam li nga bañ du ko def li nga bëggul du ko def kooku nag as gor la as gor ndax loolu la ñuy wax wéet gore wéetali ko gore mais jigéen ñi tam itam nañu xàmmee ñaar ki bëgg ak ki leen ragal yàlla bu jëkkër ragal jabaram yàlla bu jëkk ragal jabar man de bëgg ma sama jëkkër ragal ah, ba man complice laay wut a ah, ki nga xamante ni vraiment. Hmm, waa complicité man nag moom nee na sama jëkkër daf maa ragal moom. Mhm. xam naa loolu beneen mhm. man moom man moom Khadija nee na sa papa daf maa ragal ndax nag saan waaw daf maa bëgg mais moom bëgg gi ma bëgg gi ma ko bëgg a ko raw nee na nee na nee na daf maa ragal ndax euh, gor ñaa ngi takk ay deuxième femme moom boo waxee mu ne naan man gaa du ma naan deuxième. dangaa fees xelam fees xolam. fees bëtam loolu dong la. noonu soo waxee mu ne man du ma takk beneen jabar man du ma naan deuxième bu nee jabar mu ne man âgé mu ngi noonu mais tam man ci côté boobu tam ci laay nampatal jéeg ji ma nekkal ci sama kër muy asu yaay mama chéri xaadim aaw buuru këram ak euh, aram cumbe yaay mama faamur euh, chéri amdi loota seen awa njaay toir fa kàlla jéeg ju ris jooju xamante ne ñii ni ma sëyee noonu la ñu sëyee. macha allah capturé seen i jëkkër <laughs> na bëgguma sax mu jeex waaye dañ koy def deuxième partie ñu bàyyi la rek nga tëjee li ngay li ngay tëjee sant yàlla julli ci yonent bi rek euh, Khadija di la ñaanal yàlla yoo tam gudd fan gu ànd ak wér ah macha allah ni nga def ak man kontaan naa ci Khadija parce que nag ah, li nekku ku war gaynde ba wàcc loo warati mu tuuti ci yow yow fii nga ma woo dama ciy woo samay moroom nga di woo ma ci kon dama la ci wuy si ba mu neex ngay macha allah nit ku ñàkk ki ñaan ngay nit ku disponible ci samay mbir ngay nit ku baax Xadija li ñuy leblante ci baax yal na yàgg waaye ci noonu laay profité nag di nuyu waa association Bàjjeni dinaa Mohamed carte baa ngi nii euh, man Mama Gawla maa ci nekk membre laa ci nekk bàjjen képp ku bokk bokk ci association membre Seydina Mohamed yi di bàjjeni Seydina Mohamed ak yaay Seydina Mohamed yi. boo jëlee sama numéro téléphone 737. 38 21 ma jeté la ci groupe bi. jërëjëf mbokk yi ma waa gaw la cant ak ngërëm ñeen na mais dama leen di fàttali loolu début émission bi laa ko bëggoon wax gis ngeen moom mii yaa a deux trois mois xaw ma quatre mois ci ginnaaw moom moom la këram gi doon <laughs> moom la këram gi doon tàkk ah jinne ji ko doon taal j'espère que léegi fay na. yii Awa njaay la. daa mel ni bañ ko tëkkoo ba tey xam nga Awa Ndiaye da nga fee ñëw Khadija ma wax ak yow xam naa li ma ko tiital ko ndax Khadija dama koo toggal ceebu yàpp sarax. ma toggal ko ceebu ginaar ba am orne sarax Awa Ndiaye taalaat kër gi. ma toggal ko ceebu jën bu am suul ak bëgg ak kànja defal ko kaani fuddal defal ko li nga am Awa Ndiaye taalaat kër gi ma jënd nag defal ko sarax Awa Ndiaye taalaat kër gi ma defal ko njaru soo Awa Ndiaye taalaat kër gi ma ne ko Awa Ndiaye dootoo ko def ci internet bi laa ji may ndox bàyyi sama kër gi wala ah, kon taay ma ah macha allah waaw ndax gaar nañ fi gàmm nañ fi te ku nekku ci jàmm doo tala gàmm moom gaana na gën dem rek macha allah mbokk yi mu ngi noonu émission bi vraiment bëgguma woon mu jeex mais dañuy defaat deuxième partie di la sant di la gërëm yow it ku ñàkki ñaan nga li nga wax ci man yëpp ci yow la nekk ndax bu ma ñëwoon nga tëjal ma sa kanam nag dootuma la ñeme doom yaay kon mu ngi noonu mbokk internet yi tey seen astuce de femme lii la leen andiloon di leen sant leen gërëm di sant sama sama caméraman bi daa woor nag ah fi mu ne nii taxaw sax mënatu ko ngi <laughs> noonu donc cant ak gërëm ñeel la leen di leen jox dig daja beneen yoon incha allah merci beaucoup